araama seex ahmad tijaan yow ñaari bëtam jaaraama seex ahmed tijaan yow mi teral xutbu samaan Ababakar ba tax mu naan yaa ko gënal ñaari bëtam jaaraama Seex Ahmed Tijaan ala njaase pour waa dellu dem gàmm ni Seex na Ahmed Tijaan kale yi ne ma man ca man leen pour waa bu ngeen ko jox rekk mooma kee aayi saay ndeyam kii aayi saay ndeyam moom lañ ko tuddi jaaraama Seex Ahmad Tijaan xam naa tey nag gaañu dinañu yaram bu tàng la fii de yow mi teral xutbu samaan Ababakar ba tax mu naan yaa ko gënal ñaari bëtam topp nga mbay baam ngërëm mu xëy lawoo caag dundam naan lépp loo doxal këram seedeel ni am nga sañ-sañam firnde ya di waa Dakar ak bal yi baa ñoon siyaar ngeen boob sasaal ba di ko xaar góor gi tawat aw yaramam xel yi gëlëm ku nekk naa ku nuy bégal tey dégg naa góor gi du ñëw soppe naa xol yépp am na tey ngëlëm keroog la woo Ahmed Tidiane naan ko wàccal man si di ñaan waxtaana ñoom la ma daan waxtaan ci yàlla ak ndigalam cheikh ñëw ni yow ñoom xaatiba ahlan wa sahlan marhaba xutbaam ba dégloo xutaba ya toog di déglu ay waxam keroog yéen a ngi toog bu làkkee ba ca kanam ni ahlan wa sahlan wa raaxa naaqatan wa rexla cheikh ñëw ni ñoom xaatiba ahlan wa sahlan marhaba xutbaam ba delloo xutaba ya toog di déglu ay waxaam seex jàng foofee diskuram mbay seen ngi déglu tey gërëm seex di ko bàkk ci jikkoom jaaraama seex yaa bari mbay tiim na ñépp xam-xamam mbay tiim na ñépp ci tabeem nga doon biral caaw nitam dëggal nga leen ba ñëpp naa su góor gi feexey xanaa day bàyyi makkum mi xanaa mu nuy dëggal ci xam-xamam la woo may la ndigal ci loo seet ci saxel ca ab siyaasaam nga doxal te naa la yaa di wéttalam ba tax na seex meelu mu def ndigal la kee kenn du ko fif ñun ñëpp a xam ni daan na jëf ci Babacar ci ab dundam seedeel ni foo xool la xool jëm nga sa bàyyi nooyal saxal ci biir njabootam gi feral rangoo yi soppeem ci demam seetal keroog ba may xëyee fekk ci Rasuul ak Maodo si ñun ñëpp noo sa ngéem di jooy ngir di mettit lu ak demam billaahi suufiir na ku baax kii jikkoom yi góor yépp la neex mboolem ni ñuy nawe ku baax fekk na mbay jéggi fukkam bisub keroog yaanu dëfal ci ngaari yaay borom di jël ci say li mbay daan ko jëfal ba daj xolam am ca ngërëm yaa ngi defit la mbay waxoon te ngërëm loolee kat sunu baay bee toog tey moom la wéyal Cheikh El Hadj Abdou sëñ ngërëm la la wéyal Mouhamadul Mansour ngërëm la la wéyal Seydou Nooru Taal noonu ni yaay sabu kër gi yaa nuy defaandar yaay kuuru tarixa bi yaay protocole bi kon nag seedeen ni foo xool lanu kool gëm nga sa baay nooyal sa xol ca biir njabootam jee feral rongoñu soppeem ci demam bisub coroog yaanu dëfal si ngaari yaay borom ndigal ci say di mbay daan ko jëfal ba daj xolam am ca ngërëm yaa ngi defit la mbay waxoon ndax moo la woo nga ñëw mu naan del dox ci réew mi fekk tijaan tey wax lu wàññi seen ngëlëm mu naan ba muy toll na ka dem na fu nekk ngir taxaw ci diine jéeg lépp lu xew ci wàllu Malick ci dundam looloo waral say conférence ak gàmm yi ngir ngay défense diine ji tey dundal science ba mbay xalaatoon cim xelam yeneen ba def nay conférence fu gaañ am gaaram place resool taxaw na fa défense diine ji wax fa tiitaram roy nga rasul dundal sunnaam sonn ci diine jeeg ñoñom sonn ci réew mee ki nitam as gor dafay soppi dëkkam roy nga saxaabata rasul gaaña taxaw gannaaw rasul di xeex ba jël sunnas rasul tas ko ci dul mbee ci goxam moo tax aar nga mbay ba mu laaxoo tabaxa jumaa balaa bayal na kër mbay seeti leen ko aar nga ba mu laaxoo tabaxa jumaa balaa bayal na kër mbay seeti leen seex du tiit ba joog daw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma du tiit ba joog daw seex du mer ba tey seex du tiit ma joog dong saxa du mer ba teere saxa du tiit ma joog dong saxa du mer ba teere saxa du tiit ma joog dong saxa du mer ba teere saxa du tiit ma joog dong saxa du mer ba teere saxa tijaan du yox yoxe seede leen ko ar nga mbay ba mu laa ko tabaxa jumaay te kër ga balaa ba yël na kër mbay seeti leen ko gor du leloo day màgg daam xajoo ci mbi fan doo moroom alhamdulillahi kamaal ma sant rabbu sil ci yeneen te ci moom tey muslu saytaaneek pexeem gis naa muqaddam yu taxawu jàpp tariixa Seex Tijaan def ko fi siyon ngir xeexe mbay salbu na leen jëkkub demam l'islam bi ak tariixa seex jooy nañu mbay jooyi njirim ngir parti yeeg gaañu ko soos yow mal xayaam daañu torax xalaat sa yen ji jamono man waaru naa ci mindeef ngor jeex na maanda nekkatul ndekon ñu fay bor bi boroom xalaat sa yen ji jamono man waaru naa ci mindeef ngor jeex na maanda nekkatul ndekon ñu fay bor bi boroom seet kera ba mbay xayee fekki rasool ak Maodo koo gis ma nga sangem di jooy ngir di xalaat rek demam gaa ñëpp teew xol yëpp jeex ku ne di jooy Ababacar Si ku ne sangem mel ni njërim xol yëpp naaw ñu ni xeram Ahmed Tidiane moo ni bëret rof ni limaan ca yooya saa nu yog mbooloo ma sant leen xol yëpp dal ñu ni xeram ma nga naan mbooloo ma siggi leen ndigaale mbay amul moroom te sant rabbu sil ibaat te seet demuk seydil umam ma nga naan mbooloo ma siggi leen ndigaale mbay amul moroom te sant rabbu sil ibaat te seet demuk seydil umam mooy demu gor su tedd sii xut bu laxsaar bu tol na mbay sax ci sunnaak tariqa seex mbay mas sa def lu ñu ko jame gaañe fa teew tey ulama déggi kàddoom xam fa mu jaar ñoo jëkk a gëm jaayante nañ déglul malim nga xam ñi gëm alaaji ahmad waddu mbuur alfa combaan ca wàlli kees alaaji tiijaan ñang ca ndar moo ma ànd ñang te moo tabe alaaji tiijaan ñang ca ndar moo yaatu ñang te moo gore jaayante nañu bisu keroog sëriñ maniiru saar taxawu maggi njare dal di taxawu alaaji siise wàlli kees jaayante nañ ci biir këram seetal ma ñuy malim bu wóor ñuy ulamaa wu réew mi tey ku ñu seet ba def la ngay gañaay woy leen ci seex bu leen gëlëm jaaraama seex Ahmed Tidiane rangooñ yi fer na xol yi bég jumaa ji yal na yegge bég nu teew nga taawu ngaramam ku wet di laaj gaañi fi woon ku nekk naan jumaa du am bind leetar gouvernement seex Tidiane da leen a daan ci masalaam gi wax ju wér kenn du ko miim Ahmed Tidiane yaa teenu jooy na deppa mbaa bopp saxaar ndemoonu yiir ci baatinam sëriñ bu baax dalay manal fii ak feneen muy fanu jëm allah fu ndey di jooya doom seex boole laak seydil umam demba xuree ja kenn du la jàngal gàlliwoo seddoo nga mbay te sooyloo yaa xay taxaw di ko jëfal lu ñëpp xam la ci ndundam nga ruuy fi desoon tereere mbay ngir ñàkk a xam degal nga yit cosaanu aas ci wàlli diine xam-xamam jaaraama Seex Ahmed Tijaan siggal nga réew mi yaa gore mbar du leloo day màgg daam xajoo ci mbi fan doo moroom ji wax ju wér kenn du ko miim Ahmed Tijaan yaa teenu jooy na deppa mbaa bopp saxaar ndemonu yiir ci baatinam demba xoree sëriñ bu baax dalay manal fii ak feneen muy fanu jëm allah fu nday di jooya doom mu boole la ak seydil umam kenn du la jàngal gàlliwoo teddoo nga mbay te sooyloo yaa xëy taxaw di ko jëfal lu ñëpp xam la ci ngundam ayaa soodaan yi déglu leen ba leen di gënul bukki wiir wiir ndaari la jëm ci waawanay teey bi nu doy jaaraama seex Ahmed Tijaan si gal nga mi yaa gore mbër du leloo way daan xajoo ci mbi fan doo maroon seet keroog ba mbay xayee ku dib sëriñ teew nga keroog di sànni mbaal na mol ci géej ngir bëgg a yóbbuy taalu beem gaa teew xol yëpp jeex ku ne di jooy Ababakar Si ku ne sa ngeem ni njërim xol yëpp naaw ñu xeram Ahmed Tidiane moo ni bëret rof ni limaan ca yooya saa nu yëg mbooloo ma sant leen xol yëpp dal ñu ne xeram ma nga naan mbooloo ma siggi leen ndigaale mbay amul moroom te sant rabbu sil te seet demuk seydil umam ngeen dolli seet yeneen ba woon ñu wax ko iisee ak demam noonam yi bon ya rekk tax mu geddu dun bi dëddu dem mooy demu gor su tedd sii xut bu lak bu tol ma mbay sax ci sunna ak mbay ma sa def lu ñu ko jame ku wet laaj gaañi fi woon ku nekk naan jumaa du am bind leetar gouvernement da leen a daan ci ma salaam man soor ni seex jugal siyaas seex ni konen muñ ma siyaas bu yàlla deewul lii du jaas jumaa yi mbay dana taxaw jaaraama seex borom jumaa tabax jumaa teg ca jamaa ku ñëw la géey di xool jamaa sa xol di ne yaa gore mbar du leloo day màgg daan xajoo ci